waaw. yéen si saa saa laa doon dem solo dem ñu dem. waaw merci beaucoup euh, di leen masaw di leen encouragé di leen félicité yow ak euh, Boy ñoo yor la chance yëpp ngeen doon teew dix jours à peu près. waaye Boy démb laa koy doon gis moom dafa dafa demoon tëdd nelaw moom saa yi moom bi mu génnee rek ñëw na waaye Boy defe naa barki démb laa koy doon gis. Eh, masawu leen coono eh, di leen jaajëfal suñu tur ak turu baax. def liggéey bu am solo liggéey la boo xam ne ànd naag yëpp comme ñun ñëpp li ñuy def mais yéen a koy def ak engagement professionnalisme damay wax ni suñu diggante du diggante sécurité ak suñuy protéger lu xaalis sañu boole vous totalement engagé dans le projet nous sommes tous des frères donc euh, y aura des hauts et mais fi jëm dafa laaj loolu may fàttali rek nii euh, li ngeen di def yéen a koy def professionnalisme di seede ci kanamu Sénégal yëpp bu ñu leen mus a jox comme règle ci ni ngeen war a fonctionner mooy mus ñu leen sant ngeen attaqué kenn te kenn musul gis ngeen jot def attaqué nit sant ñu leen ngeen ci wax sant ñu leen ngeen attaqué nit ci euh, jëm liñ leen sant mooy ngeen sécuriser suñuy personne ak suñuy convoi ak oto yi di def ko mun ngeen musale waaye dañ leen mos a sant it ngeen réagir vigoureusement bu nekk attaque am na loolu du ma ci dindi mooy ñun ñu joxe suñu bopp ay nit jóge fële yor seen gànnaay wala yor seen xeer wala yor seen bant ñëw di ñu dóor dañ ko def donc lañ leen wax mooy saa su loolu amee na réagir ci nu mu gën a dëgëre parce que loolu kenn sant ko kenn. te loolu la ñuy reyee ci def yi wax Sénégalais yi ñun mosuñoo song nit duñu song nit mais duñu seetaan nit ñëw toj suñu ko dóor ñu gaañ ñu duñu réagir te loolu moo xew keroog fële ci ciki kon ñu ngi leen di ndax vous avez été professionnel su ngeen def jour professionnel ba kan mënoon na tuuru foofu ci dëkk la kon vraiment jërë ngeen jëf wax tamit ni dinañ jël matuwaay yu gën a bëri ba lu amat it àdduna bi yëpp dina doon seede def naa désormais fu ñuy demati di ngeen yor ay caméra embarqué ba nga xam ne lu am ñu seet àdduna bi yëpp a koy gisandoo à temps ñu xam ni lii jaaduwut ndax donte ñi ngi sant yàlla bu dee ñaar ñi bàyyi lañ leen yéen ñett ñii ñu def leen un mois loolu sax dañ ko bàyyi noonu ndax dinañ dugal appel ndax waruñu doon a benn fan waaye ñu gën a jël matuwaay ba yi bu amatee seede day nekk danaan fànn te kenn ko mën a moo tax ñu ne ci li ngeen di def di ko defal parti bi di ma ko defal di ko defal Sénégal ñu ngi leen di gën a félicité waat bu esprit bi ngeen ciy demee ndax amul kenn ci yéen koo xam ne wane na signe de faiblesse du benn yoon ndax yëpp xam nañ seen stratégie mooy nu ñuy def ba kase suñu moral dégg ngeen démb jàpp nañu Fatou Keita ndax gis nañ ni mooy coordonné nemmeeku tuur bi jàpp nañu bu ñu ko jàppee dina kase suñu élan te tey la ñu gën a mën a def nemmeeku tuur fekk naa sax ba moytuwul ci fan néew suba wala gannaaw suba wala en tout cas yi dinañu reprendre nemmeeku tuur di wax tamit di lancer waat un appel ñëpp nañu waxtaan ak seen njaboot te di leen téye ndax ñi def provocation bi ñoo ñu ci gën a ndax du mën a leen ci ba ñu jëlee ci métti ba pare ñoom yéen fu ñu leen jàppee weer ñoom jàpp nañu fa ñaari weer kon lu ko fi jaroon ñi leen di nax waa nguur gi leen di nax leen jox al euh, ay cinq mille leen dem leen sànni xeer wala dem leen est-ce que lii jar yow nii ñëw tooñ jëlee nga ci lu ci sa yaram ba pare yaa tudd gën a yàgg kon loolu li muy firndeel rek mooy tooñ du gàllaaj tooñ amul njëriñ ñun duñu mus a tooñ duñu song kenn waaye am nañu sañ-sañ en tant que citoyen dox suñu soxla ñoom bu ñuy dox seen soxla kenn du leen attaqué kenn du leen sonal waaye lan moo waral ñun suñuy dox suñu soxla ñoom ñuy jël ay nit di ko di di ko teg suñu kaw may gën a firnde fii wax ko sénégalais dégg ko di wax ñëpp lañu téye seen njaboot am na loo xam ne jaru ko fi nemmeeku tuut jàmm la dox dem seeti sénégalais yi fa ñu dëkk. dajeeg ñoom seeni biir kër waxtaan ak ñoom ci suñu gis-gis déggu seeni problème loolu kenn mënuñu koo tere kon Macky sal ak njabootam nañu yem toog te bàyyi provocation yi te di gën a woo justice nag mu gën a xool toujours kan moo tooñ ndax ñun ñi jóg dem di doxi tànki jàmm amuñu benn intérêt dem xuloo nit wala ñuy xeex ak nit kon gars yi félicitations encouragement léegi nag ñaar moomu na am soit dañuy ànd dem salle léegi wala da ngeen da di wóor une semaine parce que saa yi moom boo gëm naa ni moom saa yi moom def naa léegi nekk na cent cinquante wala cent soixante te loolu baaxul xam naa ñii seetaan maa ngi mel ni maa ngi mel ni